véhicule administratif ah, le carburant de l'État notre police et notre gendarmerie Amadou Ba bu doon candidat bu gëm boppam la assumer boppam mhm. daf il devait se décharger du poste de premier ministre tous les biens de l'État mu delloo ko état bi mu jël ses responsabilités avec ses propres moyens comme il est fonctionnaire milliardaire mu songu Sénégal on que ça va donner. <laughs> très bien loolu nañ ci bàyyi xel. Mhm. donc c'est ça sa bopp. alors Amadou pour terminer ci ci tournée économique ou... tournée économique il faut juste lire le communiqué dernier communiqué conseil des ministres tournée économique yi moo ci gën a ndaw ils ont annoncé la totale. y aura conseil présidentiel décentralisé le, le, le même cinéma bi Macky Sall doon à la veille des législatives ils vont tout faire Amadou Ba il va tout essayer de lui tout ils ont prévu tout ça tournée économique bi moo ci gën a ndaw ils vont faire du conseil présidentiel décentralisé conseil des ministres décentralisé tournée économique parce que xam na ni il a un candidat mu mel ni ku ku yore ku amul ku un candidat qui n'a pas euh, benn c'est je sais pas comment dire benn adolescent en politique nga yor foog nga téye ci mbagg mi toujours di ko yóbbu école primaire di yóbbu ko école et cetera mel ni baby sitting la koy defal du baby sitting politique loolu mënul continuer mhm. sa économique bi Amadou Ba devait aller au front au charbon mu dem dans les plages xool l'émigration clandestine kat moo ko mës a dégg lu mu ci wax devant ce drame fan na Amadou Ba nekk. pour yow ça ne les intéresse aujourd'hui gis nga les titres ñaata bateau pirogue disparu ñaata mort moo am. ñu leen laajoon ñoom l'état du Sénégal qui laisse tomber assez bizarrement filière bi ñëpp xam nañ ko de notamment par voie aérienne ah tout le monde sait ce qui se passe pourquoi l'état pour que suba ya a cent mille jeunes qui partent ngeen gaawantu bind ci chômage bi à baissé <laughs> parce que vous leur avez pas trouvé du travail mais ils son ils ana seen programme xëyu ndaw yi ana tous vos seen sigle yi ngeen ñu indil seen Prodac anamu ana Anida ana lii ana lii. est-ce qu'il faut proposer à la may ma ma ñëw bu ma dagg may ma rek ma ñëw. may ma ma donc eh, Amadou Ba li lay laaj mooy. pourquoi il ne se prononce pas sur le drame de l'immigration clandestine pourquoi il se tait il se terre Amadou Ba nga foog ni yéen li ngeen bëgg a def université fermer université pour des raisons politiques un scandale mondial alors que ñoom ñëpp ils publient seen doom yi bu ñuy jëli seen i seen i seen i parchemin dans les universités françaises mën nañ leen a citer ñoom ñëpp ministres yi kontaan ku nekk naan sama doom ci MBA la am dans la plus grande université boo xam ni li mu fay scolarité tabaxoon na école Sénégal rien que scolarité bi tabaxoon na ay école Sénégal ngeen ni da ngeen di tëj université bàyyi étudiants yi def la pour des raisons la yan raison ngeen évoqué lan moo tax ngeen tëj université. mais ils ont dit que les conditions n'étaient pas encore réunies. c'est à eux d'assurer ça. Mani état ils ont dit que il faut des contrôles de sécurité. le personnel. loolu kan moo ko indi. Mani kan moo ko indi. un état peut être défaillant partout. ma ne kan moo ko indi loolu. lan moo indi mais nag le rôle de l'état c'est d'assurer la sécurité. oui ma déedéet. vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas brûler l'université ba pare. vous ne pouvez pas brûler l'université. l'état en train de prendre des dispositions. parce que les les conditions ne sont pas réunies. il faut il faut il faut être cohérent. maa ngi ñëw de. du yéen a taal maa ngi ñëw. du yéen a ko taal. xam nga fii ñëw nañu ngeen taal ko ba pare l'état di xool les voies et moyens pour régler ça. ñoom ñoo ko taal il y a ñoom ñoom ñoo ko taal. ñoom ñoo ko taal mais amul mais mais maître amul leen preuve. non mais si on a y a des gens qui ont été arrêtés. ñenn la arrêté continue Amadou. je reviens maa ngi ils sont du Pastef. mais attendez yéen a ñoom ñoo ko taal. communiqué BU bi ngeen doon wax de. bibliothèque universitaire ba dañ koo taal ak yooyu ñoom de génn nañ avec un communiqué clair et net ak démenti boo xam ni c'est du jamais vu. taaluñ fa dara bref. quand même je reviens sur. quand même Amadou Ba yëg ngeen le scandale actuel sur l'électricité ce qui se passe ak la grogne qui qui monte et qui monte. amu ci benn solution aucune yéen lan mooy seen solution yéen opposition bi. qu'est-ce que vous voulez faire pour le pays non mais non non c'est que di wax nii rek di sànni ay baat ba pare. nga soog maa wax. de proposition. déglu ma oui ma bu proposition yi jotee bàyyi bañ génne suñu programme. nii nii lay wax eh, suñu problème électricité dañ la koy wax de façon globale ni la bu doon ñun la duñu def telle dépense telle dépense de prestige am na nuñ ko doon defee ba ba wàññi électricité bi déglul rek ñu wax la l' électricité est là déggoo ci Amadou Ba désintégré amul ci lu muy wax. ku ne pas le directeur général. aujourd'hui yow déggoo directeur général bi. lu mujj wax. c'est une administration waaw may ma administration. xoolal c'est sa politicien boobu dégg nga ko li mujjee wax. mais tout le monde est politicien. nee nañ il faut attendre amuñu ci choix xam nga lan moo indi suñu situation bi seen xaalis ba ngeen FMI mujjee woon a jox condition yi. arrêtez vos subvention jeex na da ngeen di leb di fëgg seen dënn fekk liñ bind ci suuf conditionnalité arrêtez vos subvention à l'électricité. Mm-hmm. si FMI bind ko ngeen dem jëli xaalis ñëw di wax xam ngeen ni mun leen ci tous Amadou Ba dëgg na nee naa la étudiants yi il faut qu'on règle ce problème ñun suñu ak yéen mooy da ngeen war a comprendre ni c'est la quatrième semaine de collecte de parrainage. seen dilatoire bi seen euh, dilatoire bi tëx na. on a perdu ñun quatre semaines yoo xam ni conseil constitutionnel duñu ko rembourser. vous n'avez pas dit vos vos vos tey cinq vingt huit jours yi mu perte de parrainage. mais les quatre candidats n'ont rien perdu. heureusement que vous avez les députés. yi mu perte de parrainage le conseil constitutionnel du ko remboursé même suñ ko réintégré jox ko ay fiche est-ce que loolu normal na wala normalul dans la mesure c'est l'administration qui a refusé. qui a fait obstacle. parce qu'il n'en a pas droit pour l'instant c'est nga ñëw donc ma la. yéen a ngi agité une autre beneen problème boo xam ne et c'est plus inquiétant. Mhm. seen cour suprême vous aviez votre presse ngeen yónni woon ni dañoo war a statuer le 26 sur l'affaire Mame Mbaye Niang. du yéen a ko génne yéen a ko wax ñun ñoo ko wax. yéen a ko wax non ça c'est la presse non non ça c'est la euh, presse. moom la wax. presse a <laughs> commencé par vous. bref. ci nga bokk a wax foofu mooy. yéen dépassé ngeen élégance républicaine waaw ah, xam nañ ko kay. yow juriste nga avocat nga. non il est avocat quand il le veut. non mais bien sûr. moom il est comme le am déontologie bokkuma ak yow. comme le ah, cuisinier de l'autre yow déontologie les journalistes ont la déontologie. moi j' en ai la différence a wax mooy. seen affaire cour suprême boobu. oui. en moins de huit mois ngeen régler une question de diffamation au moins juriste nga bii moom jàpp naa ne luñ la luñ fi mën a wax yépp bii moom di nga ni je suis quand même juriste te y a des <laughs> principes qui sont au-dessus de la politique. quel principe. affaire u Barthélémy Diaz ma nga fay nelaw depuis trois ans. ça n'a rien à voir. maam affaire même cas même situation ma Diagne. ça n'a rien mois on n'a pas encore de décision en appel. 24 mois. Cheikh Yérim Seck capitaine Touré jusqu'à présent tribunal te na ko évoqué. Ousmane Sonko ngeen ni le temps judiciaire yéen da ngeen koy convertir comme Aladdin ak wala waa ji nekkoon ci tapis volant mais vous allez survoler le temps vous allez survoler le temps li ngeen di def nii dama lay laaj yow nga xool ñu ci dans les yeux nga ni est-ce que Cour suprême mën nañ ko transformer en acteur politique est-ce que vous pouvez évoquer un sujet de diffamation gis nañ li ci procureur def est-ce que la Cour suprême a vocation à s'immiscer dans le jeu politique yéen que keroog keroog bi avocat général bi jëlee une position qui vous arrange vous n'avez pas dit ça. non non pas yow oh. elle a fait ceci cela. li ma la bëgg wax ñun mooy. ma ne le champ politique nii la. si le Ba Amadou vous lui donnez les moyens de l'État les moyens de l'État. pour mu pour mu def ses ses pseudo-tournées politiques. il travaille pour le peuple ah, ko dégg ci problème mu étudiants qui est un problème très sérieux très bien di nga ko ci dégg. alors Amadou Ba déggoo ko sur les problèmes sociaux. Mhm. déggoo ko sur le drame de l'immigration jox ngeen ko ay moyen bëgg ngeen nag léegi def loo xamante ni ci ngeen di pare ci état bi mooy ngeen bëgg a la cour suprême ba mu dugg ci affaire kii bi pour essayer de vous empêcher ki ngeen tiit ki nga xam ne moo tax nelawu leen yéen ñëpp nelaw leen et vous le savez très bien kon doo leen utiliser lii ngeen xam ne Ziguinchor ñàkk ngeen et vous savez que votre dossier de radiation là xam nga ko di génne ay mesures de publicité yoo xam ne laaj nañ leen ko le jour de l'audience ngeen amu leen ko subitement dans votre o ngeen génne ko ni yee on a tout fait xam ngeen ni c'est carabiné ngeen bëgg utiliser la j'espère que du ngeen franchir ce pas te yow war nga cee offusqué wu parce que <laughs> très bien je pense que a fait le Écoutez, tour si le de cette tournée économique enfin moo doon euh, le, le, le deuxième et le dernier point et puis di leen remercier d'avoir répondu à notre invitation merci à vous merci Aliou c'est très gentil maître merci d'avoir répondu à notre invitation Bounama merci à vous je salue mon ami Boy à Thiadiaye ah, moom il nous suit jusqu'à présent avec sa petite ah. ah oui donc je vous salue. j'espère que ah. bâtonnier du la du la topp. Euh, sévèrement <laughs> lan moo la lan mooy sa problème Amadou waaye c'est quoi son problème. Amadou. moi je connais les règles dama xam ne petit déjeuner mu jot message bu bâtonnier du neex. Euh, Amadou Ba moi je connais les règles waxuma fi benn dossier. waaw baax na waaw loolu nga bëggoon en fait en réalité. loolu nga bëggoon très bien alors. et merci à toutes ces personnes yu ñuy topp tous les vendredis ñoom honorable député Mame Diarra Fam euh, suñu papa Doudou Wade et puis à tant d'autres hein, que des fois dañ lay wax nga nuyu leen euh, ñeneen ñi mais on on, on oublie mais ñu ngi leen di faire un, un petit coucou et puis lan am na lu mu la wax da koy denc ba vendredi prochain am na loo ko menacé wee woon tout à l'heure sëñ Saliou. non non ba léegi. transparence bi aide à la presse bi dégguma kenn ku ci wax ci journaliste yi transparence boobu il faut exiger la liste il faut exiger la liste en 30 secondes waaw ba léegi il a jamais répondu Walfadjri moi hmm. waxuma Walfadjri waaw waaw je n'ai jamais demandé de de de de. vous avez touché ou pas man